alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mbokku téléspectateurs yi nga xam ni yéen a ngi ñuy seetaan moo xam ci DBT ngeen ñuy seetaan moo xam ci Leeral TV ngeen ñuy seetaan dinañ am jataayu koor di ci fàttalante ci suñ mbiru diine ku ko bëgg a topp dàkk ko ci DBT TV wala nga dàkk ko ci Leeral TV incha allah rabbi ci weeru koor wi wassalaamu aleykum di ci fàttalante mbiru diine alhamdulillah wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mbokk yi ñu seetaan ci DBT TV wala ñu ni seetaan ci Leeral TV tey suñu jataay ñu bëgg a waxtaane lu am solo loolu mooy lan mooy tuub mooy tuub dellu ci yàlla tuub nag buñ ko waxee mooy tuub say bàkkaar tuub say njuumte jéggalu ko ka nga xam ni moom dong mooy lay jéggal muy borom bi subhaanahu wa bi la sàkk sàkk ma sàkk mbindeef yépp nit ak jinne ni leen yàlla bindee du toujours ñu tegu ci si euh, yoon bi il faut ñu def ay erreur mën na nekk erreur yu ndaw mën na nekk erreur yu mag yàlla moo ñaalewu leen toujours ñu nekk ci déedéet ci ñàkk juum ku dul juum amul yonent yi sax dangay gis fu leen yàlla di yedde yaa ayuha nabiyu lima tuxarimu ma axalla allahu lak wa tuxfi fi nafsika ma allahu mubdi yaa ayuha nabiyu ittaqillah ak yeneen ak yeneen ak yeneen kon nit ki yeesaa mën a def erreur man a def njuumte bu tuuti bu rëy bu manti doon kon dafa war a tuub malaaka yi la yàlla binde noo xam ne ñoom mënuñoo wàcc même ñoom bu buñ ko bëggoon te duñ ko bëgg suñ ko bëggoon mënuñoo wàcc yoon parce que laa yaasuuna allaha ma amarahum wa na ma yumaruun noonu leen leen programme dunu mooy yàlla lu leen yàlla sant rek ci la ñuy nekk loolu nag wuute naag doomu aadama bi nga xam ni Euh, yàlla subhanahu wa taala jox na ko kàttan mu mën a jaar yoon waaye tamit su bëggee wàcc yoon bu boobaa mën na ko def yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci xadis boo xam ni ñëw na sax muslim muy xadis abi hurayra dafa wax ni law lam tudnibu la dahaba allahu bikum wala jaa bi qawmin yudnibuuna summa yastaghfiruuna fa yaghfiru lahum nee na mënoo leen a ñàkk def bàkkaar su ngeen doonwul woon di def bàkkaar kon dinaa leen fi jële indi waneen xeet woo xam ni yeesaa ñu def bàkkaar ñëw ci man jéggalu ma ma jéggal leen kon dafa mel ne yàlla dafa bëgg jàmbi di dellu ci moom yàlla dafa bëgg jàmbi di toroxlu jëm ca moom kilifa loolu la bëgg kilifa boo ko tooñee bu rëy wala ngay rëy rëylu ñëwal ci moom ni ko jéggal ma da koy neex lool dina xam ni yow kat jox nga ko kilifteef gi dina xam ni yow ragal nga ko di nga xam ni taxawoo ni da ngay jaamaarloog moom li ngay def yaa ngi jàpp ni da ko koy làq donte mënoo ko koo làq waaye soo ko defee pare di nga tiit dem ba ca moom ni ko jéggal ma de yàlla loolu la ci bëgg nee na dul woon def ay bàkkaar ma jëlal leen fi indi ñeneen ñoo xam ne dañuy may tooñ di def bàkkaar di ma jéggalu ma jéggal leen kon nit ki war nay bàyyi xel ci loolu yàlla ci boppam sax daf ñuy woo dinu xiirtal ci ñuy jéggalu suñuy bàkkaar parce que loolu dafa wax ne dañ ci njëkkante di njëkkante ci loo xam ne daf ñuy dugal àjjana wallahu yad'u ila al jannati wal maghfirati bi izni loolu la yàlla wax subhaanahu wa taala ci karim kon yàlla daf ñuy wopp ñu dem jéggalu ji war nañuy tuub yaduukum li yaxfira lakum min dunubikum wa yuaxirakum ila ajalin musamma yàlla daf ñuy woo pour saa su nekk suñu tooñee nan dellu ci moom buñ dem faneen buñ dem faneen nan dem ci moom te xoolal lu bakkaar bi rëy rëy rëy rëy bul naagu de am na koo xam ni li tax muy continuer ci mbante day jàpp ni daal yàlla mënatu koo jéggal déedéet gis nga loo mën a def loo xalaat ci rek ci sam xel taman man sax xalaatuma ko ni yow def nga ko wala yaa ngi koy def jàppal ni boo ko jéggaloo yàlla jéggal la ko ko wax nee na qul yaa ibaadiya alladina asrafu ala anfusihim laa taqnatu min rahmatillah inna allaha yaxfiru dunuba jamian allahu akbar nee na yow yonent bi waxal sama jaam ñi nga xam ni ñi ngi ci bakkaar yu bari ba cay feey bu ñu naagu mukk ci yërmande borom bi subhaanahu wa ndax yàlla bakkaar yépp lay jéggale yàlla feeg yaa ngi dund nga jéggalu ko jéggalu gu dëggu yàlla daf lay jéggal xoole jéggal bàkkaar bi gën a mag mooy bokkaale yàlla keneen jël ay xëram dem di ko jaamu loolu sax waxtu wi ngay dund soo ko jéggaloo yàlla yàlla jéggal la ko Omar ibn Khattab daana jaamu xeram keneen nag keneen daana jaamu xeram mais ba ñu jéggaloo yàlla yàlla jéggal leen ñu dem ba sell ba yeneen bàkkaar yépp yàlla da koy jéggale nit ki mën naa faatu sax yàlla jéggal ko ko waaye nag nee na ba mu des bàkkaaru bokkaale bàkkaaru bokkaale moom soo ko jéggaloo ci àdduna yàlla jéggal la ko waaye soo ko jéggalu ëllëg boo demee yowma xiyaam yàlla du la ko jéggal parce que inna allaha laa yaxfiru an yushraka bi wa yaxfiru ma duna dalika liman yasha yalla mën na laa jéggal lu nekk nga faatoog moom jéggalu woo ko woon ci àdduna mu jéggal la ko ba mu des bàkkaaru bokkaale moo tax wax na ci xadis qudsi ni yab na aadam yow sama sama jaam bi yow doomu aadama law ataytani bi quraabil ardi xataaya summa laqaytani laa tushriku bi shay'an la ataytuka bi quraabiha magfira gis nga ëllëg yowmal qiyaam soo ñëwoon ak say bakkaar yu bari fees dell nga xam ne boo ko tasaaroon ci àdduna bi mu fees ko ma càmbar ko càmbar ko càmbar ko muy ay bakkaar ak ñaawteef ak lone waaye gisuma ci benn bokkaale nee na mën naa laa jéggal te duma sax yëngal mën naa laa jéggal lépp te duma lay te duma yëngal kon nanu jéggalu borom bi subhanahu wa xam ni ku mën a jéggale la dafa bokk ci ay turam alxafuur bokk ci turam alxafaar waaye nag jéggalu gi pour ñu xam ni jéggalu gi kat jéggalu gu baax la ju dëggu la ñetti charte yi il faut mu am ci mooy li nga def danga koy rëccu ci sa xol mu lay metti boo ko xalaatee sax bëgg a jooy jéppi sa bopp loolu mooy lu njëkk di ko rëccu an nadamu ala ma faat beneen bi ci des mooy al iqlaa an damb mooy nag nga bàyyi bàkkaar ba nag bakkaar bi maa ngi ko doon def metti na ma maa ngi koy jégalu pare bis bu ne nga nekk ci déedéet man kay maa ngi jégalu yàlla na ma yàlla jéggal rek ci nan sàngara bi ma doon nan sàngara sànq te waxtu yu ngay def nga da ba laa jëm pour jëndiwaat beneen beneen beneen bitel déedéet danga koy bàyyi carrément yàlla na yàlla jéggal kay ci yu bon yi may seetaan te yaa ngi préparé bu ca kanamee nga seetaanaat ko déedéet ba yàlla na yàlla jéggal koy ci bërëb ya may dem te bis bi ne yaa programme waat pour dem fa déedéet suur ko ñetteel ba nag mooy nga dogu ni doo ci delluwaat loo wàccu la dootoo ko dootoo ko wannaat ñetti charte yi il faut mu tombe il faut mu daje ci tuub bi ñu doog a kii kat tuub bu dëggu la mooy rëccul li nga doon def bàyyi ko complètement te dogu ni dootoo ci dellooti kon euh, buntu tuuba ngoog ibbeeku na bala moo tëj xanaa nit ki di xar-xara dem ba room di waaj a deñ muy waaj a faatu mu nekk ci sukkuraat wala boog àdduna di waaj a tukki ban gis màndarga yu mag yi boobu la buntu tuub di tëju waaye fii ni fii ñu toll ni ibbeeku na yonent bi sax bi moo nu gën fuuf nee na dinaa jéggalu yàlla ci bis bi lu ëpp juróom-ñaar fukki yoon waxaat ni dinaa jéggalu yàlla ci bis bi téeméeri yoon kon kon ñun taxatul ñuy wax nan góor góorgóorlu di jéggalu suñuy bàkkaar même boo toogee sax xalaatoo bàkkaar boo def del jéggalu sa borom ndax bàkkaar dafa sew kon foofu la ñuy eh, taxawandi di jox dox daje ba ëllëg wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.